deru lépp lañ ci war a defar. daal di yéeg ciy def saag ah def ci ah, cartable <laughs> jomaay man boo indilee. wuyu ma saag boo xam deru jase dama koy xàmme. wuyu ma ah. jomaay cartable bi nga ko jox barki démb deru jasig la. bien ñu ko jox deru jasig la. jox nañ ko ñaari ñaari ñaari ñaari lancer muy espèce portefeuille yooyu pour ay soxnaam deru jasig la. Hmm? waaw deru jasig la ak ak ak ak ak ak tableau d'art parce que loolu. tey lu ci nekk bi ma ko koy jox dama ne ko table d'art bi parce que ay gaal lañ ci dessiné ak yu deme noonu. Hmm. ma ne ko nag dañoo bëgg ngeen jàppale na ci suñu napp mi ba mu géej gi ba nga xam ne nappkat yi daañu mën a am jën yoo xam ne dana mën a dimbali Sénégal ma ne ko ceinture bi ma la jox damaa bëgg nga takk ko pour baax sa ndigg pour wuti. Euh, ndimbal pour pour pour réew mi mën a jëm kanam cartable bi maa bëgg lu ñu la jox nga def ko ci indil lu ko hmm. portefeuille bi danaa bëgg ngi itam nga ci nga ciy def xaalis di ko di di ko di di di ko indi dàll yi ma ne ko marka marakis yi dañoo bëgg boo demee booy dem jumaa nga sol ko boo demee ñaan yàlla réew mi gën a jëm kanam mais dàllu ferme bi ñu ko jox ma ne ko booy dem bitim réew aussi na ko sol pour que gën a mën a dëgër ba mën a ba ñu indi li nga xam ne si ne moom moom la ñuy moom la ñuy soxla mais dafa dafa reetaan ma ne ko nag jox ñu la dara rek pour comme ça nii lu ci ne dafa am lu mu signifié. kon moom ñëwam bi mujj na cee jëlee bànneex na ci ah. non am na am na am na solo waaye noo ko ci gën a bànneexu. Hmm. waaw noo ko ci gën a bànneexu li tax ñu gën ko cee bànneexu mooy euh, village artisanal bu Soumbédioune Senghor moo ko inauguré woon ak vice président États-Unis. banaan muy Lyndon Lyndon Johnson. Lyndon Johnson si ça loolu yàgg na. loolu yàgg na yàlla dogal na Senghor dafi daan ñëw. gan gu mu am aussi dana recevoir fan ay président ba tàyyi yoo xam ne ci ci ci ci ci nguuram la. day daan ñëw visiter. da daan ñëw visiter même même jóge na ci pouvoir bi sax di fa ñëw. ah oui waaw jóge na pouvoir bi sax di fa ñëw. mais ca la gisee gisee président sénégalais bu dugg ci ci village bi ba ci jomaay moo tax bi mu ko defee mu nekk lu rëy rëy ci nu kontaan ñu kontaan ci trop itam. bi mu ñëw da leen a bett wala avertir nañ leen. non dafa ñu bett parce que man bi bi may xëy di dem ci lañ woo na man euh, président de fa ñëw 18 h waaye nag bëgguñu yëgal ko kenn parce que dafa ñëw pour xool ak bi pour ñu kii. d'accord jarul waaw loola loola mais teewul nit ñi moom euh, bi bi amee information bi fu nekk jën fay fii naan maa mbooloo fa mujj daje loolu nu nu nu nu nu nu kontaan ca lool am projet boo xam ne aussi dañ ko am pour ñu defaraat village bi. parce que hmm. village artisanal bu Soumbédioune mooy bi ngeen doon wane noonu. village waaw village artisanal bu Soumbédioune dafa bokk ci carte d'identité bu Sénégal. Hmm. te àddina bi yëpp ko xam. léegi léeg ay nit ñëw fa di laaj ndax village bi mooy bi ñu gis ci àddina bi ak bi ñuy dégg mhm. léegi nag loolu moo tax ñu bëgg ñu moderniser ko ba méngoo ak jamono ba nga xam ne tey eh, eh, gan bu fi ñëwati tey gu am solo dana dana ko bëgg visiter suñ paree bu ñu ko defee ci internet wala yooyu fu waay toll fu waay toll comme bi la bokk comme marché Kermel waaw comme euh, et cetera fu waay toll ci àddina bi bëgg koo visiter si loolu lu mel lu mel noonu lañ ci bëgg te liggéey nañ ko liggéey bu am solo boo xam ne parce que Abdoulaye Wade moo boole woon ak Atepa Goudiaby ba mu defaraloo noonu. maquette bi euh, waaw maquette boobu. donc donc moom wax na leen aussi da leen ci jàppale moo tax ñoom dama ne la kontaan nañ ci torop parce que boobaak léegi àddina bi fu ne ñu ngi lay fay woo di di di di ñu félicité ak di wax ne wax dëgg yàlla kii moom parce que jataay bi dafa yàggagul mu ñëw seet si ñu da xam ne wax naa ko keroog nee naa ko wolof day wax ne buur bu jógee teggiwu la su daal di jógee teggi la waaye buur bu jógee teggi la bu daal di jógee du la teggi. kon nag gannaaw tey jii woonu am nañ yaakaar te itam yaakaar nañ ne lii nga xam ne si ne euh, wax ngeen ko fi ak itam seen projet yi bi ne amoon li ngeen ci wax ci artisanat bu ngeen ko defee rek noonu kontaan te loolu loolu ci la ca fa la nekk keroog ak sunu ministre moom dem na dem na lu yàgg sunu ministre fa la nekk ba julleet nu taw euh, timis muy discuter ci wàllu artisanat parce que président fekk avant loolu moom wax na ci conseil des ministres ne dana recevoir président chambre des Euh, ak premier ministre ak ministre de l'artisanat donc kon moom xam naa ne artisanat lu ko lu ko soxla. loolu dañ ko fixé ngeen ko wala yeggeegu leen ci. Euh? ndaje moomu fixé ngeen ko ak ak seegun dem xanaa mais ministre bi woor na moom ñun. ba ab ah, d' abord am ñu ci jot parce que parce que dafa yendoog ñun. parce que dañoo defoon audience dem dikkiti mais dañoo dem keroog fa la defee la yendoog ak moom. ñuy discuter ci wàllu kii bi mu ne nag dafa bëgg loo xam ne da ko bëgg a teg ci loxol président ba nga xam bis bi ngeen ñëwee. ngeen di discuter dana am loo xam ne dana ca mën a tontu.